كذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم حديجة سكنت بالقلب قائلة لم يحزيك الله في الدارين لا تاكمي مصطفى جاءت لي ورحة تحكي ما رواه لها وقال ناموس موسى ذاك فابتصمي مصطفى وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في الخدم asalaamaaleykum mbokk jullit yi ñun waa groupe Sopp Nabi Kër mbay Fall fii ci tool Diaz madame Ndiaye ndey faatu Diouf ca bopp ba ñoo leen di yëgal seen conférence bu ñu faral di def at bu nekk ren nag ñi ngi ko jàpp le 17 mars 2024 woo nañ ci ñëpp képp kuy julit woo nañ ci nga teewe ko ci koor gi la allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ausubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci seydina muhammad sang-sang yi di sant suñu ñaari waajur di sant suñuy borom kër ñun ñu fi toog di ñaan yàlla lii nga xamante ni jib na muy suñu conférence bi nga xamante ni ñun waa sopp na bi dañ koy amal année bu nekk bii di suñ troisième édition ah ñu ngi ñaan yàlla yal nañ ko fekkee te buñ ko fekkee yal nañ ko tal jërëjëf Alaaji Sëy ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla yow it sa taxawaay yàgg waaw ci kiliftee fi soxna Ndey Astu Si bu Al Amine ajaratu nguy caam commissaire ajaratu Rama Jéey di suñu xarit di suñu mag ci suñuy pare Sëriñ Abdou Khadre Aidara monsieur le maire Abdou Karim Sall mi nga xamante ni moo nekk fii ci suñu gox di maire ci Mbaaw kër du Doucouré mi nga xamante ni mooy ki nga xamante ni moo nekk fii ci suñu gox lépp lu ñuy def lépp lu ñuy wax mu ngi ci dugal loxoom kon nag moom itamit dañ koy ñaanal yàlla bés bi yal na leen fekk ci jàmm ak salaam ndax lépp loo xam ne sumb nañ ko rekk loxo mu ngi ci biir di o suñu jeunesse si koñ di ci jiital Papa su ma ko waxee rek yóbbaale na géew ñëpp ak ASC beeg ñëpp maa ngi leen di woo ci bés bi ñu ngi koy defee fii nag ci tool jaas ci ale yi di ci woo ñëpp waaw di wax nag tàggee boo gis am na jàppal ma diw tey buñ demee ba toog fii yàlla ak Ibrahima Sow mi nga xam ne suñ jàkk ji ba muy taa moom moo ci taxaw kon nag ñu ngi koy ci bés bi di ko oowaat la ñuy wax suñ ne benn nag foog ñu ne ñaar fuñ ne ñaar il foog mu ne ñett kon nag ñu ngi woo ñëpp ci suñu bés bi bu kenn manqué ñu ngi woo ñëpp yàlla fekk lañu ci jàmm ak salaam le 17 la yemook dimanche di le 17 mars asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ci ndégalul présidente Ndeye Fatou Diouf daayira soppee na bi bu kër Mbay Fall ñu ngi leen di oo ci seen conférence annuelle bi ñuy def di troisième édition fii ci kër Mbay Fall bàyyi wuñu kenn nag ñu ngi oo kullu daayira di oo kullu imam ñi ci Sénégal rek ba ca bitim réew ñëpp ñu ngi leen di woo bàyyi ñu kenn di ñaan yàlla suñu borom bi yàlla may ñu fekkee ko ak tal ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mise en place bi nag ñu ngi koy def 10 heures de 17 mars à 10 heures de mise en place bi ñu ñaan nag képp ku jullit na nga ko fekke na nga ko teewe dañ na ñëpp sellal ngir borom tur bi dur tur bu màgg yi di soppee na bi na ñëpp sellal te ñëpp teel a ñëw ci barkeen yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ginnaaw kaddu suñu responsable moral góor gi Daawur Sey toftal ci kàddu président groupe sopp na bi soxna Ndeye Fatou Diouf ak yeneen kàddu yi ci toftaloo di wëyal di fesal li nga xam ni rek mooy li ñu fas ne def jëm ci conférence bi ñuy waajal le 17 mars 2024 fii ci Kër mbay Fall Tol Diaz thème central bi nga xam ne nag moom la ñu jagleel troisième édition bi mooy la femme miroir de la société mooy ni jigéen mooy seetu pénc Ahmad Shawqi dafa waxoon ni al ummu madrasa ida aadataha aadata chaaban tayib al araqi moom mooy ni jigéen mooy école école bi nga xam ni suñ ko waajalee ci la ñuy waajalee mboolem société ndax dañuy wax ni la femme est le miroir ou reflète limange d'une société modèle et moderne battue sur des principes immuables de l'islam kon woote baa noonu jox leen dig daje le 17 mars 2024 Kër Mbaye Fall Tol Dias asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu ajartul xalqa turran fi hawaaka wa aytamtul iyaala likay araaka walaw qatactani fi qubbi irban lama qana alfuaadu ila siwaaka تجاوز عن ضعيف قد أتاك وجاءك راجيا نرجو نداك ما المسك إلا جيفة بدماها لا تحسب المسك الزكي كتربها